effectivement alors suñu point dañuy entrer directement ci actualité politique actualité politique bu ñu ko waxee tam eh, ci PDS eh, laataa ñuy dugg ci coalition wàllu Sénégal may fàttali tam eh, nekk yaa représenté le PDS ci commité national de pilotage bu wallu Sénégal. Mm. alors tey xëy nañ gis benn xibaar ci ouverture session assemblée nationale. Mm. am ngeen benn député boo xam ne PDS la bokkoon muy Abdou Aziz Diop. xëy démissionné ci groupe Liberté et Démocratie léegi neen député non inscrit la alors loolu tey naka naka ngeen ko jàngatee. waaw euh, man tam dama xool rek ci média yi gis ne le député euh, Abdou Aziz euh, Diop dafa démissionné ci sunu groupe parlementaire bi nga xam ne ci la faloo woon ndax damay fàttali rek ci liste PDS la faloo woon et que moo taxoon mu bokk ci groupe parlementaire bi waaye dañu remarqué ne depuis le départ de Oumar Sarr du PDS Aziz était dans le groupe mais n'était pas dans le groupe parce que de toute façon Euh, ñëwatul PDS bokkatul ci activité PDS yëngatul ci PDS xëy na bu fësaloon ne nekkatul PDS day euh, ñàkk mbubum député moo tax mënul fësal ne nekkatul PDS mais loolu yëpp ku ne ak li ngay apprécier situation parce que am na fi ay cas yoo xam ne mhm. ku mel ne Mamour Cissé bi mu waree jël sunu euh, mbubu député ci moom booba mi ngi jël beneen yoon dafa taxaw ne man duma jël mbubb mi parce que li taxoon ma koy war a mën a sol mooy bu fekkoon dama continuer ak ñii nga xam ne ñoom ñoo ma ko jox waaye comme que léegi dama jël suma beneen yoon dama leen di delloo seen mbubb xëy na du ñëpp mën def loolu mais dañuy jël acte voilà on a pris acte par rapport à cette euh, démission du groupe parlementaire et que véritablement Euh, li ci des. lu luñ ci war a wax wala luñ ci war a def danañ ko xam. alors mais loolu dina tax ma laaj la man PDS vraiment lan mooy le problème parce que dañu dañu remarqué depuis un certain temps même on a vu peut-être aussi un maire comme Bara Gaye demul si seen si seen coalition coalition Yewwi la dem bon euh, buñ si doolee tam ñi nga xam ne ñëpp demoon nañ fii Abdou Aziz Diop boobu ñëpp xam nañ jege tam ak Omar Sarr alors est-ce que du caagi ne ñi nga xam ne ñoo doon dem ba léegi ñoo continuer di xëcc seen nit loolu dina tax ma laaj est-ce que PDS carrément. Mhm. ñi fi nekk ñi ngi koy gëm ba léegi. waaw xam nga PDS dafa doon parti bu mag. Mhm. boo xamoon parti euh, histoire u pedes depuis 46 ans c'est-à-dire depuis 1974. Mhm. tu te rendras compte ñu bëri ñi ngi fi woon après dañu dem ci ay kàngam yu mag yoo xam ne jaruma leen di lim ñi ngi àndoon ak le président Ablaye Wade avant 2000 ñu bàyyi ko dem terewul président Ablaye Wade accédé na au pouvoir en 2000. ci bi mu accédé au pouvoir en 2000 aussi ñu bëri si ñoom xëy na ñenn ñi jëlaat na leen ànd ak ñoom liggéey parce que moom loolu mooy gis-gisam. Mhm. leneen li ci amaat mooy xëy na li ngeen di gën a gis mooy ñi génn PDS les cartes de membres du parti à travers les 569 communes du Sénégal. D'accord. fépp am nañu commission communale de vente des cartes du PDS parmi les 300 et poussières partis politiques au plan national amul du parti opposition du pouvoir bu ñemee période yi nga ne da ngay jaay carte. mais mais mais mais monsieur Mayoro. le PDS est-ce attractivité bi ko xamee woon. waaam loolu est-ce que mi ngi koy ëmbal léegi parce ku dugg si parti de war ngeen ko fësal ne bu doon loolu ci fësal ko am doy bu fekkoon ne non xam nga les militant militant bu ne benn carte la am xëy na am na ay leaders yoo xam ne bu ñu ñëw dañuy ànd ak mbooloo loolu day am mais ñun liggéeyuñu pour wan sénégal yi naan wéy ñu ngi liggéey non dañoo xam ne bu ñu liggéeyee bu ñu tollee ci joxe résultat le parti démocratique sénégalais bi nga xam ne dañ ko relouquer redynamiser ko restructurer ko relancer ko mu am de nouvelle perspective ak une nouvelle offre politique boobu parti démocratique sénégalais les gens y adhèrent par centaines pour ne pas dire par milliers tous les jours au plan national et que euh, tey résultat yi ñu amagum nga xam ne bi ñu la bi ñu commencé euh, la vente des cartes ak léegi matagul weer mais résultats yi ñu am sur le terrain ça nous renforce dans notre conviction selon laquelle le PDS est plus que jamais attrayant d'accord attractif et que les gens les Sénégalais dañu xalaat ne tey ca juumuñu que alternative bi gën a crédible gën a valable du point de vue de la sécurité hein, du point de vue euh, de l'expérience du point de vue de l'expertise du parti parti démocratique sénégalais moom la ñu gën a yaakaar ne moom moo fi euh, indi les vrais changement yi sénégalais yi di aspirer boobu ba tey parce que nag fi ñu waxee ne nii fàllu sénégalais yi dañu sonn et pratiquement dans tous les domaines mais changement avec avec qui avec un leader qui n'est pas au Sénégal est-ce que d'abord loolu dana yomb déjà bu ngeen bëggee def changement changé ngeen ci kaw dëgg la mais PDS xam nañu ba léegi c'est maître Abdoulaye Wade et Karim Wade aussi est-ce que ça ne pose pas. aussi de loolu mooy force bi nag. loolu mooy force bi non loolu mooy force bi. comment fal parce que au moins avec eux les militants et les responsables à la base savent que ni ñooñu duñ jaay parti bi. waaw parce que ñi no Abdoulaye Wade moom parti bi. la wax waaw da daan dénkaane nag. Fallou Abdoulaye Wade dafa yàgg dénkaane ca avant pouvoir ba léegi muy dénkaane waaye fu mu mës a dénkaane rek ba li ci ëpp à la du ci am lu ko neex parti bi du ci am lu ko neex.